Dakar notre plateforme d'information. mbégte ak contentement la ñuy am saa su ne mbokk internet ñu bu ngeen ñu def seer sur Feeling Dakar TV saa su ne actu buzz dikkaat faram fàccee li nga xamante ne rek moo di l' actualité phare actu buzz people la toile restement nag li nga xamante ne rek moo gën a fës sur la toile askanu Sénégal di ko xaarandi rek fi nga xamante ne moom moo di Feeling Dakar TV dañ koy door rek moom jéego door moom rek ci ay dara. jamono gi nag nag gannaaw ba mu avoué alhamdulilah la askanu Sénégal yi wax yemul ci loolu waaye bàyyi wuñ ko benn yoon ña ngi koy def marquage à la culotte moom ki nga xamante ne rek moom moo di ah, rakki ay dara mu doore gi ñaareel tante wala ñetteel tante bu mu ci mënti doon rakki daal dinay avoué via Snapchat yemul ci loolu ba naaw nag ba mu avoué ba noppi ki nga xamante ne rek moom moo di Ahmed Cissé nag daal dinay génn moom kaddu yi lay daal di xamal ki nga xamante ne rek moom moo di rakki ay dara nee ko rakki ngal la avoué jooy nga nga man Ahmed xam ni Dora moo la takk ñeneen ñi ñoo xamul ñeneen ñi nga doon lëre naan MG meilleur gâteau waaye man Ahmed Cissé xamoon naa ni Dora Gueye moo la takk nee na ko rakki ba nga demee nag ba avoué ngal la nag na nga maandu ngal la na nga tëj sa gémmi nga la na noppi nag te daal di sëy Ahmed Cissé mu mel ni rek dafa xam loo xam ne ñun xamuñu ko nee na ko sa xarit moo la dugal ci bile sëy waaye rakki ay dara na nga maandu te daal di toog sëy muñ xam ni sa jëkkër dafa nekk ci jafe-jafe nga jàppale ko kàddu yi la Ahmed Cissé daal yëkkati teg ko ci ndodd ki nga xam ne moom moo di Racky Aïdara nee na ko nag yaa toog ba mu neex la nga daal koy publier ne ñëpp ñaanal Doro Gueye Racky na mooy di belli naka daal mooy relève bi nee na ko Racky sa jongoma lan la tey ni nga yeewoo lan la buzz bi nga may sénégalais ci week wi lan la ki nga xamante moo di Racky Aïdara Ouattara rek jamono gi ma ngay ree di wane contentement bi nga xamante ne am na ko ci askanu Sénégal rawatina nag ba ñu xamee ne moom moo di Clara bu ngeen sukkandikoo ay jamono ci ginnaaw Clara dafa defoon ab post ne na képp ku koy jiñ ne daa takk ñaareel dalay porte plainte ci yenn site internet yi site internet yi jug taxaw ne ndax porte plainte boobu dina amam du am naam Racky Aïdara moo daal di avoué ci li nga xamante ne rek moom moo blessé yi bu mel ne a jamono gi rakki ay dara mayul yotaa ki nga xam ne moom moo di Clara ak lu ci mën ci am jàpp leen ne rakki daa dinay avoué lu neex waaye Ahmed Cissé nee ko avoué nga noppil xale la def feuille flamme ci li di ko daal di xamle waaye nag gannaaw ab diir musul neexoo ki nga xamante moo di le King Baba Ngaaka Blindé ki nga xamante moom moo di Ngaaka Blindé Gueye nag daal dinay posté di ko massawu ci li ko daal nee na ko nag xam naa ne maak yow dër bi la gem bi la musuñu woon neexoo ndax danga ma daan te waaye itam danga la la fa moo rafet wax kay moom la king ci li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllum hip hop bi ndaxte naka daal ne def feuille flamme star Caroline Faye bu Mbour nee na après glow moom mi ngi focus ci leneen ndaxte ci lan lay focus nee na li nekk ci kanamam dafa bari mi ngi waajal album nekkatul glow moom lay daal di xool waaye mi ngi ci yeneen vibes yoo xamante ne heure bu génnee askanu Sénégal dinañ kontaan moom gone Mario Mbaye gi kàddu yi la daal di yëkkati sur la toile mu di ndaxte loo nag gis nañ ne jamono gi feuille flamme bi nga xamante ne am na sur ma ngi koy daal di doxal ba mu neex ndaxte loo di yëkkati yi la kàddu di ko xamal askanu Sénégal rawatina nag ci période bi nga xamante ne rek moom ci la ne daal di doxal nag doxal goo xam ne jéggi na dayo loor sur la toile saa bu génnee askanu Sénégal kontaan moom Adja Keïcha mu nekk koo xamante ne askanu Sénégal kenn dootu ko présent sant ci li nga xamante ne rek moom moo di ci milieu théâtral bi rawatina ca Marodi TV def feuille flamme fa nga xamante rek moom moo di esplanade grand théâtre tàkkusaanu Babel Adja daa dinay belli daa dinay sañse waaye itam wax na ci relation boobee nga xamante ne am na ko ak waa Marodi waaye itam félicité ñi nga xamante rek moo di waa Babel au micro de Feeling Dakar TV Adja li muy daal di xamle muy nga xamante rek mooy jëm ci wàllum cinéma liñ ci a def ak a ba tax na la daal di def sur Feeling Dakar TV gën a a mécontentement bi nga xamante ne rek am na ko ci li nga xamante ne rek moom moo di série yi nga xamante ne ñu ngi def feu flamme sur la toile Mbaye Diagne daal oto nag la daal di inauguré nag ni démb nag ñu gis ci en toute complicité ki nga xamante ne mooy yaayam ak euh, soxnaam mu nekk ab tubaab mu nekk complicité bu parfaite boo xamante ne ñu ngi koy gis sur Actubuzz Mbaye Diagne mu nekk l'international waaye itam ñëw investir fi nga xamante ne rek moom moo di dëkkam askanu Sénégal kontaan lool ci investissement bi nga xamante ne rek moom moo di l'international Mbaye Diagne daal dina koy def ci li nga xamante ni rek moom moo di sur la toile Momo Momo et Pod Marichou Momo nag nekk koo xamante ni askanu Sénégal kenn dootu ko présenté gannaaw ba mu ñëwee jotaak saanu Babel taskatu xibaar yi di ko xaar ci leen di romb nag jamono gi bu def buzz la toile ci romb bi nga xamante ne romb na taskatu xibaar yi sur Actubuzz ndaxte bëggoon photo wala sax bëggoon jël ay interview ak moom xool jamono gi Momo ci lan la nekk mu nekk lu jéggi dayo loo xamante ne mi ngi def buzz Chérifou heure bu génnee ñëpp kontaan bu ñu nee Chérifou ne Chérifou Job Sabran gannaaw nag ñoom ñaar bañ tasee a Cherifou daal di jël yoonu boppam ci li nga xamante ne rek moo di ci euh, musique rawatina nag ci carrière jamono gi nag dafa def ab fiançailles ak boo xamante ne rek moom lañ daal di gis nag ñoom ñaar ñu gis complicité bu parfaite boo xamante ne rek am na seen diggante rek ñuy laajte woykat yi nga xam ne ñoom ñoo di les sénégalais lan moo leen neex ci jabaru tubaab li waral li ni mel li tax mënuñoo xool ci jongay euh, xale yi Sénégal yi nga xamante ne rek daal dinañ koy jógee euh, sur la toile waaye jamono gi ak lu ci mënti am Cherifou ma ngay gis boppam ci ki nga xamante ne rek moom moo di bile Eh, Sidi Diop ca diwaanu France ab Zénith de Paris jamono gi nag Sidi daal di nay takk leen di takk jaaj yi itam def ab convoi bu am solo fas yéene wutali ca diwaanu Paris lan France Zénith 29 juin eh, moom doomi Sénégal bii di Sidi Diop du wàccal feuille flamme sur la toile gannaaw Wally Seck ma ngay rëkk fële nga xam ne moo di ca Italie le 29 ñoom ñaar ñu bokk bi lee date askanu Sénégal di xaarandi Wally Ballago Seck ñëw ci datub Sidi Diop fële nga xamante ni rek mooy ca Zénith de Paris ndax dina ñëwam du ñëw ak lu ci mënti am Sidi daal di nay takk Dia ci jamono gi sur Actubuzz Feeling Dakar TV fas yéene jubali diwaanu France wayal lu neex ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di ñooñee nga xam ne ñoo bawoo Sénégal dem bitim réew daani doole ca diwaanu surprise bu ne dina ci am waaye itam di leen wax ni lu coow li neex neex lu coow li bari bari bu leen fàtte ne de Paris l'intégralité c'est sur Feeling Dakar TV yéen ñi nga xamante ne a nekk ci diaspora bi ab fépp fu ngeen mënti nekk jamono gi sur ak Sidi Diop ngeen fàtte ni Racky Aïdara avoué na moom mooy kor Dora Gueye le 29 juin bii Sidi Diop au Zénith de Paris man mii la def parrain bi léegi laa ko recevoir ak délégation bi waxtaan fi waxtaan yu am solo macha allah Sidi bii ma gis moom pare na kon nag le 29 juin Zénith. maaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum le monde entier asalaamaaleykum les Sénégalais de la diaspora nag maa ngi nii taxaw ak sama mag sama xarit muy Waly Ballago Seck nga xam ne nag il fait partie des parrains d'honneur ah, ci sama bis boobu nga xam ne falaa laa jëm muy Zénith de Paris moo gën a ma ñëw fii nag seet si ko am fi am fi satisfaction bu doy sama xol sedd toog ma kontaan toog donc mon ami mon frère diaspora baa ngi noonu le vingt maa gars yi euh, lii challenge la teel a génn wala si tefe ci Sénégal seen ku ne xam ne semi nocturne nocturne la teel leen génn jàppale seen doomi réew jàppale suñu artiste suñu star teel a génn mooy wane ni doom ba Sénégal challenge bi mooy teel a génn teel a génn salam sanga sànce ñëw déggee vingt et une heures si ñu ngi mu toj ko mu daal di ñibbi parce que génn bi challenge bi moom